tey dañoo ñëw tey tenir point de presse bi point de presse bi pour euh, tontu monsieur Ousmane Bay muy directeur commerce intérieur monsieur Ousmane Bay bi ñu défé conférence de presse vendredi bi lay passé dafa tontu pour né chambre de commerce gisu fa problème mo taxone tay bu fekkon sax tay ki tontu boole pouy de la dunduñ ko faalé waye ki tontu tey gémmiñam la. nopp ministre bi nopp ministre bi ku ko wax mooy nopp président mooy ñaari nit ñoo mën a dox ci kooku li muy wax ak li président war a xam war ko gëm te Ousmane bay li mu wax yépp xam naa ci tàngaay la ne ci géeju naka su dul noonu la nekkoon ci géeju wax lu dul dëgg la nekkoon moo tax Ousmane Mbaye dañ ko wax tey dañ ñëw pour tontu ko pour wax ko nag Ousmane Mbaye jiitewul ay golo jiitewul ay baabul ñi ko daq jàng rek la jiite tey gën ko xam dëkk bi muy doxee kon nag Ousmane Mbaye

muy arrêt 40 arrêt 41 arrêt 25 arrêt 26 Tay, chambre de commerce mënu ñoo wax dara dara dara dara dara dara dara tey de dul élection su dul euh, ñu jaar ci balaa ñoo wax dañuy def assemblée générale Tay n'a gis nañu def nañu assemblée générale sans dem ci élection loolu ku ko cautionné muy ministre du commerce muy directeur commerce intérieur cautionné nañ loo xam ne xamuñu ko laaj na ñoom nag ñu dem yeesal seen xalaat yeesal seen jàng yeesal seen xam-xam parce que tey jii nii li ñu wax li wax defuñ fi dara su dul aggraver situation bi man nag kersa laa ci am kersa laa am ci ministre bi d'abord ci Ousmane Mbaye am kersa ci ministre bi am ci kersa ci gouvernement Sénégal ñun de li ñuy laajte méttiwul te li ñuy laajte jafewul 53 magistrats dañoo toog man mii ma dem plaider dossier ba gagné ko

waaye loolu depuis 2016 ñu 2020 muy 10 ans mandat 5 ans la 5 ans yee weesu New ñu yokk ci ben at parce que ministre amoon na droit def ko par arrêté loolu weesu New ñu yokkaat ci at parce que président n'a pas yokk par décret Lolo weesu na 2017 fa la yem ndey 2020. def une loi pour créer chambre nationale décret d'application application yi génnagul te décret d'application, comme nous l'avons fait, année le 2014 arrêté euh, décret 2014 47 bi président signé ñu annulé ko ñu ngi xaar euh, décret yi war génn loi bu tamit ci parce que le ministère dafa jóg ministre bi Ousmane Mbaye jóg Matar Laax jóg ñuy def président di leen xool ñun leen laaj dafa nekk ministère bi ci coordonnateur Il leen gestion chambre de trois dernières années dem leen xool lii dem leen xool lii dem leen xool le chambre de commerce dafa noonu loo xam dafa am importance si réew réew bu bëgg émergence lépp bëgg développement te rek la wax sa problème chambre de commerce munoo bouger meetar te ministre bii mii moom moom moo xam ban tur lay tànn ci moom soit mu ne statut la wala mu ne moomi la mais noonu ndax ñett ci tànn benn dañ ko sentiru gisuñu ko ñun xamuñ ndax am nañ ministère di commerce wala amuñu ministère du commerce bu weesoo loolu Ablaye Sow bi nekk chambre de amul xam-xam bi amul njëriñ bi pour mën a diire chambre de commerce te koo xam tey def na tey tey tey jii nii tembale vingt neuf ans lu ñu xaar président Macky Sall du àtte xeex day bàyyi ba lépp nëpp mu doog a jóg Ablaye Sonko depuis vingt neuf ans li ñuy laajte mooy da ngeen régler prévision de justice yi lée agent judiciaire moo tax bi ma ko rombee ci couloir tribunal yàggul dama ko ne loo fiy def fekk maa ngi ne assemblée général bi c'est illégal ma ne ko loo fii def mu ne man dañ maa woo ma ne ñu woo pour lan ñu la woo ñi da nga leen waroon wax ni tey jii nii dossier bi fële nañ ko yaa 10 ans aw ma fii lu ma fiy def loolu nag tey def ñuy jox yeneen jàngat jàngat bi mu ñuy jox mooy agent judiciaire ci boppam lañ war a xool lan mu la mooy le rôle parce que tey ministère mënul tey euh, ay fonctionnaire lajj ci mbir wala dugg ci mbir moo xam dañ cee lajj tey nga porte leen plainte dem ci justice nga gagné nga ñëw ñu notifié ko agent judiciaire l' muy dem di ko jox ministre bi nii te wax war te waxu ko exécuté ko parce que amul pouvoir boobu kon texte agent judiciaire dafa doon ay texte yoo xam ne dafa màgget dañ ko war a ceytu dañu war a ceytu nag ci dëkk bi dafa bëri décret 2014 47 bi président signé woon ñun ñoo ko annulé léegi nag dañoo làqatootul sax léegi parce que dañuy wax ne fu mu yem rek neex waaw dañ ko annulé Nous avons reçu la loi de 2017, ça fait trois ans que nous avons reçu le décret d'application. nous avons fait le décret d'application, nous avons fait 10 points aujourd'hui, nous l'avons reçu. Mais nous avons reçu un nouveau décret, nous l'avons reçu le texte de l'Union, que le euh, président de la Chambre de commerce, qui est ici, a géré le budget de 1 milliard, nous l'avons reçu par l'agent comptable particulier, nous avons reçu, le décret nouveau décret. Nous avons reçu le ministre, nous l'avons reçu le ministre. nit boo xam ne boo toogee mënoo ko gis xamul lan mooy secteur bi lu muy dox président Macky Sall comme ni ko waxee bind naa ko courrier le 18 juin ba tey pour laaj ko loo xam ne dafa am importance tontu wuñ man na wax dëgg yàlla bu fekkee ne da nga nekk ci réew nekk autorité yoo xam ne seen préoccupation secteur privé bokku ci te réew moomu neen dafa bëgg émergent bu ngeen xamee ni muy jaan na ngeen ñëw wax ma ko parce que man bëgg naa ko xam bu leesoo loolu ñun de ñun dañu ñun président de la République lu ñu koy laaj mooy la gën a ubbi noppam déglu secteur privé du ma wax sax secteur privé wax ñëpp la war a déglu man de gis naa temps yi ci ci film yàggul président français di a dugg théâtre ànd ak soxnaam français yoo ko monsieur Macron monsieur Macron français voudrait parler mu bàyyi ñëpp foofu daw ba ci waaj ñëw déglu ko ñun de président ci télé rek lañ koy gis te nee na secteur privé dafa bëgg am émergence dëkk bi na ngeen nekk jàmbaar comme man nekk loolu possible gul Ablaye Sow na dana génn chambre de commerce ci nii wala ci naa te du yàgg incha allah du yàgg nag mooy foo def 29 ans ngel na nga xalaat sa ndono ku nee nañ la ku añaane sa ndono sa deewin dafay ñaaw